ak bu ma déggaa ñu ne solo sànneen dañ ko rey ak bu jaatoon jigéen ah, waaye man lu ma jana jaaxal si government bi lu war a tax nit ñi nekk victime first of all mooy Fabakary Tombong Jatta moo indi eh, emergency boo xamee ne ñu bari te ñu ngi laajte seen nit ñi gisuñ ko ak Siirul Jaay wax na fii mu ne Adama duñ ko watal fi because man so ge se ngi wax ni def ma ñor 2016 ni ñi day soonoon pour tek gene dictato sirti si dëkk tay su nekkee ne ñun dañu gis ne nguur gi ñu ngay jëlaté gestu yo xamé ne dañ fajal Gambia gisul ñoo xamee ne dañ jaaga jénn ñi ñoo xamee ne déema ñun ak ñoo ñoo doon nekk